te ba léegi sax ñun fii Afrique de l' Ouest on dit bu weer bi feeñoon Zender fële si Niger. Mm-hmm. tubaab bi télégramme doon def yónnee ko gouverneur général Saint-Louis. Mm-hmm. ne ko waxal nit yi ñu wori. Mm-hmm. sëriñ yi waxuma seen doom yi fi nekk sëriñ yu mag yi ñoo fi nekkoon ñoom ñu doon wori. Mm. xam nga fi xam ne El Hadj Malick moo fi nekk. El Hadj Abdoulaye Niass Cheikh Amadou Bamba ñoom ñoo fi nekkoon tubaab bi envoyé un télégramme ne leen woor bi jot na woor leen ni woor. woor jot na woor leen ñu woor yi. Sénégal moo commencé am ay deux fêtes deux Korité deux Tabaski yàggul. Mm-hmm. temps colonial mosuñu am deux Korité deux Tabaski. léegi man coono mooy tubaab bi moo gënoon diri moo gënoon gérer diine bi wala après indépendance kon lan moo fi yàq suñu diggante. après indépendance 1960 sax ba fi mag ñi nekkee laa wax. mais fii problème bu ñaari ñaari ñaari Korité Tabaski bu fi am. que du responsabilité moo moo manqué kon. waaw man dama gis ne dafa am lenn li nga xam ne xeexu mag ñi la wala waaye mujjul jëmm mujjul ñu ko jëmmal. muy xeexu am benn conseil islamique supérieur. li mhm. mag ñi amoon nañu itte bi demoon nañu ba taxawal ko sax. salaamaaleykum wa rahmatullah seen mbokkum taalibe bi la sëriñ Saalihu Gee Barar noo déggandoo kàddu yi Omar Diagne wax ci gàttal tubaab bi dañ daan digal suñ tubaab muy def daan ko tere muy bàyyi li nga xam ni moom la suñ jubaa gënoon a bañ. muy diglu ndigalal tubaab ba daan ko lu ko dal looloo ko teg loolu la kiy bëgg a saxal ne loola amoon na kon ñu ne wutaay bi suñ tubaab yi xam ci loolu dara waruñoo toog rek di diglu mel ne dañ koy saxale loolu wala dañ ci amul xam-xam Omar Diagne li ma leen njëkk a wax mooy pare na nun taalibe sëriñ Tuubaa yi fépp foo nekk ñu fekk la fa teg la ci oto yi gën a bakkane xàll yoon wi yóbbu la ci suñu télé lu mel ne Touba TV wala Lam Fall nga indi preuve yu wér wane ne lii nga wax am na doo ko indi mukk tudd nga ay kilifa nag ba boole waaye Sëriñ Touba bokkul ak ñooña li suñ jafe ñu ne yéen nag mooy bés bu set da ngeen boo leen di wax na ay nañ benn noog nañ naam kilifa diine ñëpp a yem da ngeen a bëgg yemale ni ñëpp a mission waaye loolu amut Sëriñ yi yëmut ak kenn lam bañoon ku ko bañoon dem. ñàkk koo nangu moo ko génn réew mi ñi ko nangoon ñu baree bari ñu ngi ci réew mi moom mi ko bañoon nag moom lañ defam noonu génn ko Omar Diagne keroog bi tubaab bi bindee leetar yónnee ko Serigne Touba ci Mbacké Bari Serigne Touba moo la gënoon a xam ni bari nañu faatu tubaab yi leen rey ñu moo la gën a xam ni bari nañu torox tubaab yi leen toroxal moo la gën a xam ni am nañu génn réew mi sànq tubaab yi leen sànk bëri doole tubaab moo la ko gën a xam waaye ñu yónnee ko benn lettre wuy juut ñaari lettre wuy juut lettre yi di dem këram ak ñëw rek waaye wuy juut am na ci yoon woo xam ne sa rakkam la yónni ngir mu dem wuy jul ko waaye keroog bi mu wuy buysee ñu ne ko waa yow boobu ba tey ñu ngi lay jox ndigalal nga wuy si wuy si woo mu ne ndigalal suñ borom laa doon diglu te jotuma bi ma jotee rek wuy si naa leen tubaab bi jox nañ ko ndigal wuy jiwut suñ tubaab jox suñ borom jox ko ndigal muy doog wuyu kon kooku ndigal suñ borom rek lay diglu suñ Musaa Ka nee na du digle lu bon du diglu kurul boromam ca wolofal boromam du diglu kurul boromam suñ tubaab am na ñu daan nooylanteeg tubaab bi nangu nañ ñoo xam tubaab bi nañ leen diglal ñuy jëf daa leen ñuy bàyyi am na bu leen ni tubaab yi dañoo bañoon daara wala bañ jàkk déedéet daa am nu ñu bëggee jàkka ja am nu ñu bëggee daara ja bu loolu amee ñoo lay jàppale ci daara ja ja sax far loolu nag suñ tubaab mus nangu na ci kilifa yoo xam ni waxuma la daan jàpp maanaam di diglu ndigal tubaab su dañ leen daal liggéeyal ndax am na jamono tubaab yi daan ni téere yi nga xam day jógee Mauritanie di dugg ci réew mi amatu téere boo xam ne day dugg ci réew mi rek ñu bàyyi noonu mu jàll téere bu duggat na jaar ndar ñu saytu xool bu dee téere boo xam ne day yokk jullit ñi pas-pas wala leen xiirtal ci xare wala yu demee noonu nañ ko sànni ci géej gi bu dee téere yoo xam ne arootu wala nax wala yu demee noonu rek lay jàngale nag mën naa dugg ci réew mi tubaab yi boobu mënuñoo lire arab ay kilifa yi diine ñoo daan dem di leen defal loola ñooy xool téere ba bu dee téere boo day maanaam da yokk jullit ñi pas-pas wala luy jëm ci yu demee noonu ñoo koy sànni ci géej gi ñoom kilifa yi diine yi am na ñu ko daan def te ay kilifa yi diine lañ daan noo leen teg tubaab bi am ak ñoom ay relation te boo xoolee réew mi ni mu demee rek xam nga ko suñ tubaab moom daa àndu nale ñun sax daanaka ay kaw kaw la ñuy wooye wala ay bawal bool wala ndax ñun ñoo ngi fële laalewu ñu ñoom dara daanaka sax mag ñi dañoo bañoon tubaab suñ tubaab yar boobu la la yar. bokk na sax li bi gënoon na maanaam jaaxle ci suñ tubaab mooy mag ñi ni mujjee ñemee tubaab ndax réew mi dañoo bay dañoo ragaloon tubaab waaye suñ tubaab def ñoom ragal yàlla goo xam ni tubaab bi dañuy dugg ci dëkki kaw kaw yi ñi nga xam ne ay murid lañ murid ya toog ci pénc ma duñ faale tubaab bi tubaab yi nag den dañu di posté fekk suñ tubaab def na ci ñoom ragal yàlla goo xam ne ragalu tubaab kuy def loolu moom moom dina lijjanti di ragal tubaab bay diglu ay ndigal ñu naan ko wooral muy woor wooral muy wori mukk suñ tubaa du nooyalante ak ñoom nooyalante mu daarante maa maslaa defal nga def baal nga bàyyi déedéet kook du suñ bu ñu wër ki gën a réere suñ tubaa ci àdduna bii man ci jamono ji ñu toll dama naan Omar Diagne mi la li yashhad bi anni laa udaaxinu mushrikan li la suñ tubaa waxte boobu moo moo nga maayam ba jàkkaarlu géej gu maayam ba naan ko nanga nga seede boobu fa mu ko doon waxee boobu tumbaranke na ba amatul ku mu koy seede waaye géej gi la naa ko na nga seede ni du ma nooylanteeg maanaam bokkaalekat yi ma nooylanteeg ñoom mukk keroog la maa ngi waxtaan ak sama benn xarit bi ñu wax naaru Bamba fekk boobu ñu waxtaan ma diglu xasida gu ñuy wax rum naa sukkur alladi ci biir xasida suñ Tuubaa di ci wax loon dama ne waaye kii moo wakkilu suñ borom kii moo gëm yàlla kii moo doylu ku gëmee ni kii yàlla mosuma koo gis ma ngay bind ba naan katabtu fil bahri anni laa du yadi ila nasara abidil maa i wa tiini fam ko bindee bu dee yóbbante buy jóge fii senegal di fa dem dana jafe lool ndax foofu sore na te boobu dem ak dikk yómbewut nii bu dee yóbbal yóbbu woon moom ci boppam war naa jeex ndax yàgg na fa juróom-ñaari at juróom-ñaari fan waaye ak lu man di am te boobu sëñ bi daana tumuranke lool sëñ Tuubaa daana tumuranke ba daana ko bind sax di jàmbat tumuranke waaye danaa ko yàlla yow rek laay jàmbat sama tumuranke maa ngi wax naa ko lahu ashtaki du'fi wa faqri wa xurbati yëg naa damaa ñàkk damaa tumuranke damaa xeebu waaye yow yàlla yow rek laa koy jàmbat te boobu moo na ne ah waa tubaab yéen tamit nag dimbal leen ma ci nangam nangam ndax am naa soxla waaye mu ni mukk katabtu fil bahri anni laa amud yadi bind naa ci géej gi ni man mi de laa amud yadi du ma tàllal sama loxo ila nasara jëm ci nasaraan du ma tàllal sama loxo mukk dem ko ci nasaraan yi ñu ko waa koy tàllal sa loxo jëmee kon mu ni lillahi jalla yadi wal qalbu maa badani wa saaqali fawqa maa inde sulaytini sama loxo yàlla laa koy tàllal sama xol sama jëmm waaye suñ borom moo moo mën a fay jox na ma loo xam ni kawe na li nekk ci loxo yi Euh, borom pal gi moo xam sëriñ si la moo xam buuri la moo xam ku mën doon la ne seen loxo suñu borom jox na ma lu ko gën a kawe ndax lan daa wakkilu suñ borom du diglu kudul suñ borom du diglu ndigalal kenn kenn kenn kenn kudul suñ borom te li mën nañ ci jox ay misaali misaali misaal ba ñu euh, vidéo bi gudd li nga bëggoon wax ci wàllu weer ak nu ko murid di doxalee ci suñ Tuubaa lañ ko royee Omar Diagne sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne mooy doomam moo na ko wax doom la ci sëriñ lu mu wax Sëñ nee na ngeen séentu weer wi boo leen ko gisee ngeen woor boo leen ko gisee ngeen wori bu loolu amul na ngeen matal weer lii la Sëñ Tuubaa nekkoon lii la fi bàyyi woon ñi fi jëkkoon ci lii lañ nekk ñun murid di noo ngi jégalu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullah